par rapport ak état bi ak ñi nga xam ne ñooy opposé wu ak état bi waaye tëj ko itam defe naa ni du yokk dara état bi. Abdoulaye Mbow ki nga xam ne nag moo di ministre bi ñu denk wàll affaires étrangères di Aïssata Tall Sall dal dina àddu jëmale ci li nga xamante ni moo ñeel passeport diplomatique yooyu ak mbuxum ma ca nekk ak ñaari député yan cay tudd moom nag nee neen askan wi yëpp ñoo ko daal di yëgandoo te itam lu jëm ci wàllu séparation des pouvoirs dafay tax nag ñoom ñu daal di rek toog xaar yoon def liggéeyam ñu teewlu ko ci. yàlla man damay dégg ñu naan trafic passeport mais man gisuma fenn fu ñu ne bii passeport dañ ko trafiqué ni ngeen ko déggee man noonu laa ko déggee ma wax ñu nag ñetti mbir dafa am loo xam ni dafa soxal assemblée nationale soxal député dañoo ne yow ministre bi gouvernement bi fonctionnaire bi nang ci maandu parce que yoon mayu la nga jéggi frontière boobu suñu constitution daa rëdd encore benn frontière diggante justice ak exécutif bi moom bi ma ñetteel maandu mooy enquête dafa am secret képp koo xam ne danga weer yi muur yi secret enquête yoon am na si yow wàll te bés bu nekk yéen a ñuy jàngal état de droit lii mooy état de droit donc lii am ba ministère affaire étrangères maandu ci mbir mi kooku sénégalais dañ coo war a sax am mbégte ñu des ak moom euh, jëwriñ ngi ñu denk wàllu affaires étrangères yooyee kàddu mu ngi ko daal di yëkkatee nag ci am euh, ab euh, forum international boo xam ne ñu ngi ko loon ci lu jëm ci wàllu jàmm ak kaaraange ci Afrique mu nekk mbir moo xam ne day am juróom-benni fan jàpp juróom-ñaari fan ci weeru décembre bi di ñëw mu nekkoon kon wàccaay li tey dañ ci ànd ak Fatou Lay Mbaye Fatou Laye Mbaye Diop kon teewe woon tey ji ndaje moom nga xam ne foofu la Aïssata Tall Sall doon yëkkatee yooyee kàddu ñeel nag ab forum international boo xamante ne jagleel nañ ko lu jëm ci wàllu paix ak sécurité fii ci Afrique mu nar a am ni ki juróom benn fan jàpp juróom ñaari fan ci weeru décembre bi di ñëw mu bekkee ne élément bi yan bu lekk alaaji gis nga ko jëriñ ngi ñu denk wàllu affaire étrangère nee na moom mook askan wi ñoo yëgandoo coowal passeport diplomatique yooyu passeport diplomatique yi ñu ngi koy confectionné bitim réew lañu ñu koy defaree. fii la ñuy dajalee seen ay kayit dugal ko ci DHL mu dem bu ñu demee ñu defar foofu passeport bi dugalaat ko ci enveloppe comme courrier mu daal di ñëwaat kon bu ne yëgu ko xel mun na koo nangu ah, wax dëgg yàlla foog ñu logique nag. Mm-hmm. loolu la xel nangu euh, kan moo ko signé mais ki mën a confectionné pièce euh, passeport diplomatique ba mënoo koo xàmmee ak bu baax bi pour mu trafiquer signature aussi loolu itam posé wul problème. donc man bu ci bu ci dédduwaane woo nii moom moom ñëpp ko yëgandoo man dinaa ko nangul de sérieusement dinaa ko ko nangul parce que amoo benn preuve bu mën a taxaw ni doo ko nangul mais nag côté bi ma koy ñaaxe mooy euh, ci service am war nañu am benn vigilance même au niveau des aéroports ba nga xamante ni bii bu nit ñëwatee présenter passeport diplomatique am nañu ay ay hologramme luñ ci mën a sécuriser passeport diplomatique bu baax ba nga xam ni kiy falsifier du mun mën a mukk falsifier passeport diplomatique bu baax baneen boo xam dañ ko dañ ko dañ ko toppandoo foo bi du mën a jël place be donc mais vraiment man ay propos man lu ma ko nangul la. la paasan. waaw je je suis <coughs> logique gu Mansour ah bu ne effectivement il elle parle d'information euh, Aïssata Tall Sall la ministre euh, mooy ñun ñoo ko yëgandoo effectivement loolu li Mansour wax dama si d'accord mais problème bi pour man newul foofu <coughs> encore que on ne parle pas de de passeport falsifié faux diplomatique et cetera passeport bi existé na dañ ko use maanaam utilisation de passeport de faux passeport de passeport diplomatique la nanu ko usee ak ka ko use ak léegi nag la wër loolu foofu la coow li ne bi si des moo la euh, position bi nga xam ne adopté na ko en tant que ministre par rapport à l'exécutif ak le parlementaire loolu mu wax foofu tamit dëgg la malheureusement l'État use ainsi quand il faut le faire et que ça l'arrange quand il faut pas le faire et que ça donc foofu la problème bi ne mooy que ci cas de figure bi ni Aïssata taal Sall wax dëgg la lépp yoon la malheureusement dañuy def constat ci yeneen domaine ci yeneen nit que bu leen arrangé wul dañuy am beneen attitude boo xam ne dañuy jël exécutif mu tegu ci kaw parlementaire législatif bi. ñu wax ci lu jëm ci wàllu fonction publique local bi ak itam lu jëm nag ci fukk ak ñeenti point yi nga xamante ni daal dinañ ko woon bëral ñaar rek moo ci daal di des mooy li nga xamante ne moo di yóbbu agent wu IPRES yi ci fonds nationalu retraite ak itam taxawaluk lii di centre national bu formation wu agent wu collectivité territoriale yi lu ni mel nag ñu ngi ko daal di rek euh, bécci niki tey ji ci suba ci session ordinaire bi nga xamante ni ñu ngi ko doon rek jagleel wàllu wi dañ ci ànd ak Younousa Baldé ndaje mi tax na ba càmbar fukk ak ñeenti point